bisimillah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi nga xam ne ci ngeen di daje ak suñu kàddu ñu ñaan yàlla mu fekk leen ci jàmm ñu leen di ñaanal ngërëmal sunu boroom subhaanahu wa taala te ko sàkku ci yéen ñuy dellusiwaat ci suñu jataay fahal mi muddakir wa laqad yasarna alqur'ana liddikri fahal mi muddakir muy jataay bu ngeen miin ñuy ñëw rek ci fàttalante ak yéen ci li nga xam ne mooy alqur'an tey insa allahu taala ngi doxantuwaat dellu yéegaat ci kaw ci suuratul maida suuratul maida tey danañ fa soxlawoo aaya bi nga xam ne ci la sun borom subhanahu wa taala di soññu di digal ñi nga xam ne gëm nañ ko te wek ko am nañ li nga xam ne mooy taqwallaahi bu leen di digal ñu sàkk li nga xam ne moom mooy wasila mooy lu leen jokkale ak seen boroom subhaanahu wa taala kon ña ngay dem ci aaya cinq di fanweer ak juróom ci suuratul maida muy yaa ayuha alladina amanu اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة دانا dem itam ci suuratul ankabut ci aaya ba nga xam سنو برام سبحانه وتعالى مامي دي فوخ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين واحنا دق خاينا سخ جنبل لمن ملني واخ سن بروم دي واخ وقول اعملوا fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ba tey aaya boobu xañ na ma soxla ko ci détails yi nga xam ne moom lañuy def kon fas bu njëkk bi dafay jëm ci aaya bi ñu njëkk jàng muy yaa ayuha alladina aamanu ittaqullaha wabtaxu ilayhi alwasilata wa jaahidu la sabilihi laallakum tuflixuun muy aaya boo xam ne bari na boroom xam-xam yoo xam ne dañu koy firee naneen nu bokkut ak rekk nit ki war a wut koo xam ne daf koy jokkale ci digganteem ak boroom subhaanahu wa moo xam su boobaa ñu tudd ko sayxu muy ab sëriñ wala beneen tur bu ko nit mën a jox waaye mooy rekk ki nga xam ne daf lay jokkale ci sa diggante ak sa boroom subhaanahu wa taala mufassiroon yi nag buñ ñëwee ci aaya bu mel nii ñoom dañ ci indi ay détails yu bari wane ne wabtaxu ilayhi l mooy bépp moyen rek bu lay tax a mën a mucc tax laa mën a dugg aljana itam ba di ci lim yu baree baree bare di la wax ne sax sa mbokkum jullit mi xiif nga jox ko mu lekk wasila la ki mar nga jox ko mu naan wasila la danañ ci indi sax léeg-léeg exemple ndaw soosu nga xam sauvé gi mu sauvé xaj bi ci mu metti wa taxoon na yàlla jéggal ko ay ñaawteefam ñu ne kooku xaj bi wasila la moom boo xam ne moo ko jottali ci njéggalul suñu borom subhanahu wa taala ki amul fu mu dëkk nga jàpp ndalal ko ko wasila la ki feebar nga jàppale ko mu faju wasila la masalan kon mooy bépp xeetu jëf bu baax rek mu nit kiy jëflanteeg moroomam jaamam wane na ne wasila la bu koy jokkale ci digganteem ak boroomam xaqan dëgg la dëgg la am na ñoo xam ne nanga nga jëflanteeg ñoom rek nekk na wasila ba la yóbbu ci yërmandey sun boroom ba musal la ci sawaraam am yoo xam ne mën naa nekk wasila ba la yóbbu ci nga am yërmandey suñ boroom ba am aljanna am ci yoo xam ne mën na laa yóbbu sax fu gën a kawee foofu kon yooyu yëpp buñ ko tuddee wasila dañuy wax ne wasila ëmb na ko mi ngi ci xajoo na ko maanaa yooyu yëpp rek wasila xajoo na ko waaye nag ëpp na loolu xajoo na ko waaye nag ëpp na loolu yeneen yeneen boroomi xam-xam itam danañ ko yóbbu ci lu mel ne alquran ne mooy wasila bi tax alquran di wax naan wabtaqu ilayhi alwasila ndax mooy sa code bi nga xam ne ci ngay tegtaloo ngir dem ci sa borom subhanahu wa taala wax nañ dëgg ndax ba tey wasila xajoo na ko waaye wasila ba tey ëpp na loolu ndax bu fekkoon ni téere bi képp mooy wasila kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ñëw kon ne alquran rek mooy wasila bi kon yonent bi du ñëw waaye kon mi ngi ci biir waaye nag ëpp na loolu alquran téere la boo xam ne bu biir la téere la boo xam ne bu wér la waaye nag dañ la koy niital dañ la koy niital ngir nga mën koo gis sunu boroom subhaanahu wa taala wax na ci alquran qad jaakum min allahi nuurun qad jaakum min allahi nuurun jiblu ci muhammadu rasulullah waaye teg ci ne wa kitaabun mubin kon téere bi dafay ànd ak torche boo xam ne moom lañ naan tay ci kaw téere bi niit ko ngir nga mën a gis kon téere bi leer na wér na waaye nag dafay am leer gu lay niital ngir nga mën a jàng téere boobu mooy nuurun googu alxuraan ni qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin ñëw di alxuraan kon kitaab boobu di alquran nuuru muhammad googu moo la koy niital ngir nga mën koo xam moo la ciy dooleel ngir nga mën a jëfe la ci ay ndigal mën a bàyyi itam la nga xam ne moom moo cay ay tere kon téere bi dugg na ci biir wasila waaye ba tey wasila ëpp na loolu ndax alquran muy téere téere yaa danga koy fekk ngir ngir jariñu waaye mënulaa fekk ci tëbb la su fekkee ndawul yàlla nag muy yonente wala sayxu bu fekkee bi mat lim doon la kooku day mën a fekk ci sa xel di ko soppi ci ay xalaat mën a fekk si sa xol di ko soppi ci ay bëgg-bëgg mën a fekk si li nga xam ne mooy sa ruux fëgg ko yee ko loolu tax sayxu mënul ñàkk ni nga xamee ne dama misaal ne yonente bi dafa mel ne torche bi nga xam ne moom ngay nit ci téere bi ngir gis noonu la sayxu di mel ci murit bi sàkku suñ borom bi sàkku ngërëmal yàlla moom melut ne téere boo xam ne yaay dem ubbi téere ba door a mën a jariñu téere bi yaa koy fekk si gën a mën a jot ci ay njariñam muy yonente mu sayxu bu mat lim doon suñ borom daf ko jox kàttanu moom mën a fekk si sa xel mën a fekk si sa xol mën a fëgg sa ruux mhm. muy yonente bi muy sayxu bi bi mat lim doon yow murid bi mën ngaa ñëw mu waxtaan ak yow nga yëg nim dugg ci sa biiri xalaat miy lijjante sa biir nga yëg bu baax ne yow xam na li ne ci sa biir xel nga xam ne dafa tàbbi ci sa biiri xalaat di la wëlbati léeg nga nga bu bagage yu bari ci bagage yi àddina yi waaye boo ñëwee bu gëddee sa xol rek nga sànni ko tiit ngay def man ngaa ñëw ci sayxu bu mat lim doon ànd ak bëgg-bëgg yu baree bare baree bare waaye booy wàññi yëg ne soxol sànni na lépp nga ngëbaat jëmmi yàlla ji rekk ndax doomu aadama it ni muy xëyee nag nga xam ne daa xëy sangu sol ay yéreem nga xam ne ci set ci la xëyee waaye nag bu yendoo ci ay activité am ay yëngatuum rek bu jant soo bu ñu waatee da yëg ne yaramam laajaat na mu sangu amaana sax mu laajaat mu changé ay yéreem nga xam ne poussière bi koy dab ak tàngoor yu koy jàpp mooy indiwaat ci moom lu laaj mu war a sanguwaat yëgaat ne yaramam laaj na loolu moo tax morit bi itam li muy bëgg-bëgg yàlla li muy dogu dogu jëm ci suñ borom subhanahu wa taala teewut xasaraat yi xasaraat yi muy fakkastal yi ak yu ndaw ndawaan yooyu daf koy xaw di tilimal daf koy xaw di gàllankoor léeg lekk léeg-léeg mu mel na ku xaw a fattu ci xel ba tàmbali di xalaate nu mu dawul xalaate wala mu tàmbali dugg ci yeneen bëgg-bëgg yoo xam ne waccoon na ko démb ak bërki démb waaye bu ñëwaatee rek ci sayxu bi bu jataay amee rek su waxtaanee yow rek nga nga yëg nim duggaate ci sa biirum xel lijjanti ko dugg ci sa biir xol sànniwaat ba sànniloo sànniloowaat la bagage yépp te du la ko wax mel ni koo xam ne dangaa ñëw mu dugal la ci wan wi sangaat la ba nga set sololaat la yére ne la ay ca nga xam ne moo tax kooku kon ngay ñëw day baax ci yow waaye boo demee rek ñëwatoo tilim di ñëw te sangootoo subaa day mujj li ñuy wax dan mooy egg foo xam ne daanaka fóot du ko setal wala diis na ci sonn moo tax suñ bay jaxate am fu mu koy waxee ci taalif yi morit bi ni war a ñàkk géje ci say xoom ndax falay sete fa lay dolli ko bagaas yi àddina yi koy sonal tag ci xelam yenn yi tag ci xolam foofa la koy summi ko moo tax bala sa borom ne sàkkul wasila xam na li tax dama ne yaa ayuha alladina aamanu ittaqu llaha wabtagu ilayhi alwasilata te bu ngeen ko amee it wa jaahidu fi sabilihi laallakum tuflixuun yéen ñi wax ne gëm ngeen yàlla da ngeen gën a am ak ragal yàlla taqwallahi mooy wegeel ci sa digganteeg sa borom taqwallahi mooy weg yàlla masalan mooy jox yàlla cër ba su diglee rek nga yëg ki digle ci sañ laa digal ba tax nga defee la mu digle ak donte diis na ci sa bakkan bu teree itam nga xam ki tere mooy kan ak sañ gim la sañ a tere ba tax nga bàyyi la muy tere donte ko neex na ci sa bakkan loolu mooy taqwallaahi mooy respect daal waaye taqwallaahi tekkiwul ragal yàlla loolu xawfu moo koy tekki ma xawfu maanaam ragal yàlla xawfu mooy di tiit mooy ragal mbugalum sun borom subhaanahu wa taala loolu mooy xawfu mooy nga ragal mbugalum sun borom subhaanahu wa taala waaw walla sëriñ bi di junj ci masaalikul jinaan naan wa haysuma taxaf ilahaka al ahad yaxaf ka min xawfuka kulla ahad waaye xawfu bi mooy ragal mbugalum yàlla xawfu toujours rajaawu lay àndal ñaari balance la yoo xam ne il faut nga teg sa tànk ci ñaari yépp mooy xawfu ak rajaa mooy wadduuhu xawfan wa tamaan jooju alquran di wax mooy raxaban wa rahaban jooju ba tey waayene taqwallahi moom mooy wek sun borom subhanahu wa taala jox ko cër ba bu diglee nga def bu teree nga bàyyi ndax kooku mooy ko fabu jëm ci boroomam ki am taqwallahi dëgg mooy ki nga xam ne meebu na ngir am yitte dem ci boroom subhanahu wa taala kooku nag suñ borom daf ko wan ne ngir nga ñëw ci man da ngay am wasila sàkkul loo mën a jottilikoo ngir egsi ci man moo tax wasila mënta ñàkk wax naa la ne firi nañ ko nu ne waaye nag firi mi ëmb lépp mooy ki lay wommat jëmale ci sa boroom subhaanahu wa taala ndax fi nga war a jaar ci àdduna ngir set ci mboolem rasaayil li muy jikko yu ñaaw mën man itam làmbaayoo li nga xam ne mooy makaarimul axlaaq ba yàlloo mën a yéeg dem ci sa boroom ci xel ak xol ak ruu foofu mënu faa jaarale sa bopp dañ la jaarale sunu sëriñ rek doy na ci misaal muy Cheikh Ahmadou Bamba abdullahi wa qadimi rasulihi wax nañu ne bi mu nee bërit amoon na yitte jëm ci boroomam jëmmi boroomam tam moom la dëgmaloon waaye nee na sunu boroom ci boppam moo ko wëlbati tegtal ko rasulullahi ne ko mooy sama bunt def ko muy sa wasila mooy lim ne dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadin li samadi maanaam yàlla ci boppam moo ma tegtal yonente bi ngir wan ma ne mooy buntam mooy fi may jaar ngir mën a egsi ci moom nee na ma jaar ci yonente bi mu eggale ma ci sun boroom wax na ko ci beneen waxin dallani allahu ala xayril wara wa xaadani xayril wara li sil wara nee na yàlla moo ma tegtal ki gën ci mbindeef yi kookee gën ci mbindeef yi wommat ma jëme ma ci ki nga xam ne mooy borom mbindeef noonu itam ci la wommatoo ci rasulullahi sallallahu alayhi mu koy digal di ko defloo di ko bàyyiloo mu boole jaamu yàlla ak sàbbal yàlla boole itam ay madaax di tagg di jëme ci rasulullahi sallallahu alayhi ak itam di julli ci moom noonu mu ko waxee ne salaatu sitta bi matxi sitta juróom benn weer yoo xam ne day def salaatu di julli ci rasulullahi juróom benn weer yoo xam ne daf koy tàgg di ko def muy addiyaam ci digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi itam di xëy ci ab toolam muy sunna di ko ci bayal lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul mënta ñàkk foofu sa xel mën naa laaj wasila bi sëñ bi am ndax boobu wuti na ak wasila ya nga xam ndax à part loolu diggante Cheikh Ahmadou Bamba ak yonent bi bu paasee laneen li nga xam ci ay suyoox sayxu kuy dundulee doon nga nekk ak moom ci jamono man laa womat ci yoon yàlla lan nag moom moo ko may mu am sayxu bu toll ne rasulullahi sallallahu alayhi wa te fekkentiwul ak moom jamono ci zahir loolu jagleeg suñu boroom la subhaanahu wa taala ndax yàllaa ko ko joxal boppam ndax wax na ko comme yàlla moo ko moo ko tegtal yonente bi suñ borom moo ko booleeg yonente bi te yonente bi ruux la goo xam ne ba tey mi ngi def ak a ci kawnu bi ruuxam jógu fi kon looloo tax mu jaar ci bunt boobu ngir dem ci suñu boroom ñun taalibe itam loolu lañuy ñuy digal daf nañu képp ku bëgg a egg ci suñu boroom la wut li nga xamne mom moy mooy ku koy jottali jokale ko ak boromam waxna ko ci maxaaliqu niran man talabal wusuli lil jalil falyatasim bi sunnati rasuli ne bi an yulaazima mutian la yamil fi zahirin wa batin an sabil wax suko su yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi darkil aada noonu la ko waxee nee na képp ku bëgg egg ci sunu boroom subhaanahu wa taala falyatasim bi sunnati rasul la ci jiitu mooy nag mooy ci sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy shari'am na mat bu ko sàggane shari'a shari'am na mat na jaar ci li ñu yonente bi nosal mhm. ndax sayxu bi lay yóbbu kat ci kaw yoonu sharia ci la lay fekk door laa mën a teg ci waruwaayu xaqiqa waaye boo nekkee ca mbooy ga doo jot ci xaqiqa boo ne ca nga nekk danga ko tuddoo rek dañ lay fekk ci kaw yoonu sharia yéegal la ci waruwaayu xaqiqa kaw yoonu ñu la fekk nga taxaw mooy sharia ci nga taxaw di xaar ngir di xaar maanaam oto yi bëgg a dem fa nga jëm yaa ngi xaar suyoox yi ngir ñu jël la kaw yoon wi jaar di dox di dem nag loolu mooy tariq danañ ko leeral ci xaaju ñaareel bi jëm ci kanam kon ci kaw yoonu charia lañ lay fekk jaar ak yow ci yoon wu ñuy wax tariqa ngir yóbbale ci xaqiqa moo tax sëriñ bi wax ne ki bëgg a dem nag mooy ci sunna si yonent bi salaatu wasalaam mooy na nekk mu charia boo xam ne ku tege ci charia la te nee ne ki muy àndanteel na doon ku tege ci tariq ku jaar ci aw yoon koo xam ne ci tariq la mooy bi an yulaazima mutian laa yamil fi zahirin wa batini ani sabil nee na ci kaw nag an jooju day sart maanaam ci sartum nag mu taqoog aji topp yàlla joo xam ne nena du mooy yàlla ci zahir du ko def ci baatin du ko def ci zahir mooy du wàcc aw yoon ci zahir du ko wàcc ci baatin bi an yulaasima mutiyan joo xam ne laa yamin day topp yàlla du jeng fi zahirin wa baatin du ci zahir du ci baatin du wàcc mukk ani sabil yoon woo du ko wàcc mukk day jaare yow ci kaw tariqa di dem maanaam am na ñoo xam ne dañuy wàcc yoon ba noppi daat koy def mbirum sañ-sañ déedéet déedéet moom day nekk ci kaw yoon wi rek sayxu dëggantaan day doon koo xam ne bu waxutoon dara dara nga dëkk ak moom di ko roy képp ci ay waxam ak i jëfam dangay mel na nga war a mel waaye du doon ku dugg ci mbooy gi ba noppi bëgg wane ne daal maanaam ay yëf ay sañ-sañ laag yooyu déedéet laa yemil la wax fi zaahirin wa baatin du ci zaahir du ci baatin neen lay tax nga maa dem dangay ngay àndante ku tege ci yoon wax waxoon na ko nee na ku jokk ci ku egg dangay egg waaye ku jokk ci ku jóg ku eggul doo موضح موني بو امي كو مل نونو يقوده بالعلم والعباده كما يربيه بترك العاده بو امي كو مل نونو موي كو خامني داف كاي ومان نك تي خام خام بو وير اك جام يالا غو سيل كما يربيه بترك العاده موي اك نونو موكاي بولك ديكو تربيه كما يربيه نيغي موكاي تربيه موي نيم كوي جار لا تي يونو مجاهده غير بكانم مو نوت بكانم لولو تخ ايي بي سون بروم ايغاليكو بيم ني وسيله yëmu ci waaye daf caa boole jihaad ji nga xam ne dafay war nit ki ci yoonu yàlla mooy wa jaahidu fi sabilihi laalakum tuflihun xam naa buñ del si waatee rek incha allahu taala gën a eggale ak yéen jàll ci aaya bi ci suñu kanam itam incha allah jërë jëf